Bonjour Monsieur le Ministre, nous sommes très contents de vous accueillir aujourd'hui à Touba. C'est quoi, vos, c'est quoi vos premières impressions après avoir vu cette saint Écoutez, nous sommes euh, très impressionnés par euh, l'accueil chaleureux que nous a réservé les populations de Touba. Euh, nous sommes également impressionnés par cette réception du calife général qui nous reçoit au moment où il avait suspendu ses auditions. C'est un honneur pour nous. Oui, euh, c'était quoi l'objet de votre visite à Touba aujourd'hui Nous sommes venus au Sénégal dans un premier temps pour tisser, euh, pour entretenir les accords de coopération avec la République du Sénégal. Euh, nous avons également pour mission de venir à Touba rencontrer le calife général pour euh, un message important du président de la transition, au premier rang desquels euh, le gouvernement euh, va encadrer le pèlerinage des Maurides cette année à Mayumba. Euh, nous allons offrir un certain nombre de, de, prestations de services à partir de Libreville. Deuxièmement, euh, le message du président de la République euh, annonce également que nous avons donc Euh, il a accepté la construction de la quatrième mosquée telle que mentionnée dans les écrits de Charabidou Bamba à Mayumba. Le terrain est disponible et nous attendons les Maurites justement pour commencer les travaux. Voici le euh, premier le, message du président de la République. Et en même temps, nous sommes venus prendre les bénédictions du calife général parce que nous attendons cette année euh, beaucoup de pèlerins qui vont, rentrer dans la caravane touristique du Gabon. grande première au Gabon de recevoir tous ces pèlerins pendant la caravane touristique au Gabon. Donc nous avons, euh, nous eu les bénédictions du calife général. Euh, c'est pour nous une euh, grande joie justement de venir sur place prendre ces bénédictions. Effectivement, en tant que ministre du, Tourisme du Gabon, vous allez recevoir votre homologue. Quel sera l'objet de vos discussions et quelle est l'orientation sectorielle sur le tourisme religieux que vous allez prendre Euh, avec euh, mon homologue du Sénégal, nous allons d'abord rappeler les accords de coopération qui existent entre nos pays, mais également nous allons voir euh, dans quelle orientation justement mener cette coopération, en sachant que avec le Sénégal, nous avons un tourisme très particulier, c'est d'abord ce tourisme religieux. En recevant les Mourides au Gabon, euh, nous marquons notre euh, amitié avec ce peuple D'autant plus que cher Amidou Bamba représente quand même, c'est un symbole euh, de la spiritualité en Afrique que nous, euh, que nous, gardons, que nous gardons jalousement. Et euh, aussi de voir avec le ministre sénégalais comment désormais orienter une bonne coopération avec le Sénégal, en sachant que le Sénégal occupe une place importante en termes de tourisme dans l'Afrique. Le Sénégal a montré, a montré à suffisance que c'est un pays touristique, avec une place importante du PIB euh, de, de, avec euh, euh, euh une place importante euh, de Sénégal à, une, voilà, à 7%, je crois. C'est 7% que le tourisme occupe dans le PIB. C'est important. Lorsque le Gabon, nous sommes encore à, à 3%. Donc nous sommes venus également nous enrichir de l'expérience sénégalaise. nous savons que Touba a une place importante dans la vie de l'Église catholique, puisque le Saint-Père lui-même avait porté une attention particulière à cette communauté. Et comme Mayumba est l'un des points culminant de la spiritualité mouride, il va sans dire que notre venue ici à Toubab apporte un plus pour sceller ce lien de coopération et dans le cadre aussi du dialogue interreligieux au niveau de l'Église en général, au Gabon en particulier, et d'une manière plus précise à Mayumba qui se trouve dans le diocèse de Mouila au Gabon. Justement, en, en termes de dialogue interreligieux, quelles sont les impressions des Gabonais par rapport à la communauté mouride qui vit les impressions sont bonnes de telle sorte que le pèlerinage mouride qui se passe à Mayumba a toujours eu, eu un bon accueil, un bon encadrement et nous sommes ici justement pour témoigner de la continuité et comme vous avez entendu le ministre le dire tout à l'heure, cette année est une année de grâce parce que le pèlerinage se passe au sein même de la caravane déjà mise en action, programmée par le ministère du Tourisme qui favorise justement ce tourisme religieux. Et ça, c'est un début. Nous aimerions que cela se perpétue pour que nos pays reçoivent des bénédictions, aussi bien les pays, les populations, les pèlerins et toutes les personnes qui favorisent ce tourisme religieux. mooy euh, ki may bëgg a jox mooy directeur cabinet ministre du tourisme fii sëñ Mountakha Diawo muy ñëwoon accompagner ñi nga xamante ne. ñoo jógee Gabon muy ministre du tourisme waaye fekk fi njabootu sëñ Touba gépp euh, moom la ñuy bëgg a jox kàddu gi kon bisimilah. nuyu leen ci turu Mountaga Diaw ministre tourisme de l' artisanat di sant euh, sëñ bi si accueil bi ñu defal di ko ñaanal yàlla yàgg fi lool te wër euh, suñu tànk tey moo doon gunge délégation bu jógee Gabon. xam ne ministre tourisme ak artisanat euh, moo ko jiite ànd ak euh, maire Bayombe ak euh, évêque Bayombe donc ñu ñëwoon fii pour ziare si sëriñ bi ces caravanes Bayombe nuñ koy nuñ ko mën a yombal lu taalibe yu bëgg a dem diggante 24 14 21 juillet incha allah ci yàlla àndee donc looloo doon suñu tànk di yaakaar aussi mun a développer ay relation ak euh, suñu suñu suñu euh, Gabon ci tourisme religieux parce que ay taalibe dañ fi jógee di dem Gabon mais yaakaar aussi ay ay ay ay ay Gabon ñëw ziar si Touba si gàmmu wala si si màggal wala si yeneen jotaay jërëjëf. Euh, sëñ Mourtala dañoo am benn yëg-yëg boo xam ne. tey jii ci ziar bi nga xam ne visite bi nga xam ne euh, monsieur le ministre bu tourisme bi bu Gabon bi fi ñëwoon ànd ak euh, maire bi maire Lamba maire Mayomba bi ak effet bi ñëwoon doon ziar si sëñ Muntaxa waaye tamit di formaliser itam euh, mbirum caravane bi nga xam ne léegi moo leen taxoon a jóg ngir ñu man ko leeral sëñ bi li ma ci yéem te mën nga koo ñàkk bañ a wax mooy 2022 dañoo ñëwoon fii ci sëñ Mountakha bi ñu màggalee euh, Mayomba ba noppi jógee fa ñëw siyaar ko doon ko siyaar euh, doon ko wax itam li nga xam ne moom lañ bëgg ñu xamaloon na ko kat fee ca Mayomba euh, fi suñ Tuubaa sampoon bant yi église bi moo ko wër te dafa naqaree jot lool Mbàkke ñu bëggoon nga ñaan ci ñu jot ci man cee liggéeyal Serigne Touba na ko Serigne Fallou Bousso yéene woon pour jumaa ak daare Mam Jaara bi ñu àggalee mënuñu na seen xel dal na ngeen rafet njortu lépp da ngeen jot incha allah rabbi moo xam ko 2022 2023 yàlla dogal na euh, liggéey bi amul caravane bi amut 2024 bi nga xam ne léegi moom moom la war a am incha allah rabbi tey jii nag ñaan gam ñaanoon yàlla da ko nangu nangu wi yéeme. ndax ma ma effet bi ci boppam ak ministre bi ak maire Mayombe bi ñëw nañ tey ci kanamam jël caabi Mayomba jox ko si Muntaxa ne ko caabi ji mbakke mi ngi nii ñu indi la ko muy lu yéeme yéeme loo xam ne lañ doon sàkku ci moom ak lañ waxoon tey jii nii ñaan gu nangu la goo xam ne ne ñooñu seen bopp ñoo ñëw indi ko ko kon lu mat a sant yàlla la te xam ne Serigne Touba mbiram boo ci nekkee rek nekk ci rek waaye li ko lépp incha allah rabbi dalay def ci yoon wa loolu dafa nekkoon lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu marqué loo xam ne mënuñu ko war a ñàkk a bañ a wax di ñaan yàlla suñu borom mu yàggal ko te wéral ko lool waaye tamit di eh, ñaan tam mbokk yooyu fi ñëwoon suñu borom dellu leen ci yoonu jàmm ak salaam. خلا وسالك نار الخل لي بر ما ينبغي